salaamaaleykum di wax na jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk di nuyu champion yi suñu grand yi suñu morom yi suñu papa yi même suñu jigéen ñi fi nekk di journaliste yi ñëpp ñoo ngi nuyu mais ñun mënuñu waxaat leneen lu weesu suñu grand yi wax ak suñu frère Boña lu mu wax ñun Papa Sow nekk suñu grand frère lu mu wax ñun mënuñu wax leneen. man damay wax ne di wax ne boo ñam man yow laay waxal di wax ne lii nga def nit ku naa am ay junni junni junni junni junni dara te du def nit ku naa yor bu dul jeex te du mais lii bu amee lu ñoo war a wax li nga xamante ne mooy li nga xamante ne moo ñu tax a jóg mooy métit maanaam fu mu méttee fu mu méttee ñun nañ jafe-jafe bi ñu gën a am xam na ngeen wax si làmb wax ngeen si làmb ba pare te li ngeen wax si làmb ñun li ci jaaraale day nekkaat loo xam ne ngay répété bàyyi ma jool mu ngi doon mais lu muy waxee moom xol lay waxee parce que buy waxee xool moom mën na wax sa tujaan parce que moom xol lay wax ragalul kenn dëgg lay wax mais tey xam nga dëgg boo ko jëlee suukar ko ba mu sax nga joxoon nit ki loolu la ñuy def man côté bi may waxee mooy jeunesse bi jeunesse bi waxuma làmb de man damaa romb làmb mooy nit ñi ñu dañoo dëkk si banlieue fi nga xamante ne foofu la coono tàmbalee. man damay yeewu ay nit taxaw sama buntu kër parce que alxuraan damay war a dégg damay bàyyi sama dégg jox nit mu dégg lu tax ma koy dund man mun naa ko mais est ce mun na ko. dëgg la nit ñi liggéeyuñu nit ñi amuñu da ngay sa yaay bu soxla junni nga koy xool nii te mënuloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dees moo la ko gën a. nañu état jàppale nañu état jàppale ñu nekk ñu ay noonam. ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñun lay ñëw. kon te ñun bu ñu soxlaa suñu kàddu am lu ñu métti am loo xamante ne mooy suñu rongo ñu xonk da ngay jàkkaaroo ñu man waxoon man dem ba sax damay jëlale laa ma yàlla donc moomu tamit doonte xale laa ndax man damay gis koo xamante ne teg ci la du fi am dara ci def te amee ji ay ñetti doom ci biir kër mais kenn liggéeyul da ngay xëy li ngay xëy noonu ngay wàcce mais mille francs yooyu nga def transport pour dem sax yow boo sañoon yow nga jox ñu dépense ba ñu xëy toog si kër gi nañ ñu jàppale nañ ñu état jàppale. dëgg ñuy jàppale nag mooy ndaw ñu liggéey. mooy ñi am xel. ñi am xel mën a dimbali keneen ak keneen ak keneen ñu jàppale ko xelam boobu jëriñ keneen ak keneen. ki am doole ñu xëcc ko ñaata hectare ñu nekk si àll bi ay tubaab ñoo koy jëriñoo. ñoom lañ koy jox ñu ñëw fii jël suñuy ambulant da ngay gis ambulant yoo xam ne dañuy ñëw si biir dëkk bi fii nii. gis koo xam ne day ñëw investir jóge Siin wala feneen ak feneen ñëw investir jël suñu kattan di koy liggéey bu ñu waree fay dix mille franc dañuy fay ay mille cinq te ñu suñu nijaay wala suñu mbokk moo ko naan ko ñii ay dof lañ wala fay mille cinq cent suñu liggéey parce que dañuy liggéey ndax gisuñu dara président jàppale ñu. boo ñu jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu jàppalee sa njaboot nga jàppale xam nga li gën a am sat ci àdduna mooy ndaw ñi mujj juddu. bu ñu waxee boole la ci boo fi demee ñu bàyyi sa empreinte kon na la waaye ñun suñu abonné mooy lii sa loxo jox nañ la jox nañ la suñu lépp parce que alxuraan man xol laay waxee man soxlawuma dara mais li may gis bu ma ko gis président dimbali ñu bu dee góor nga góor góor